léegi nag dañoo bëgg a doa u zawdul muridin muy benn xasida boo xam ni al cheikhu moxtaar loo mi nga xam ni seydina limaamul mahdiyul muntazar ginnaaw ba mu génnee àddina ci ak maanoom moom seex moxtaar ak fegoom ci ak sàmmoom waaye ci ak xam-xamam ak nangoo jaamu yàllam moom moom la seydina limaamu taamu woon pour mu bindal ko téere bi ñuy wax bushral muhibbina وتيقظ الجاهلين موي تير بو خامني دانك انسيغمان ولا بوك جار جار سيدنا الامام لي سي اوب اوب اوب داخل داخل سي تير بوبو شيخ مختار موم نك مو بين بنن قصيده تودي كو دوان زود المريدين اور بو نياني نون نيب ني جوك سي اي ابيات باي نجا وار نكو جانغال غيناو نيالا نك بغ نن اور بو نياني نون نيب ني اند واخ امين نخ sayyidina imam degna naa alayhi salaatu wasalaam dan na ñaan su mag di deng-dengal mu ne leen kon laay de leen ñaan may wax amin kon njariñu amin am solo kon heure bu ñaané rek ñun ñëpp nañ and wax amin bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam taslima wa ba'du faza du'a min 'indi muqtar lo imamillah وإمام المسلين جمعنا اللهم وآمين سميته دعاء زود المريدين ونفو المطلوبين الإصلاح والإخلاص اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم آمين اللهم ثبت لنا إيماننا والإسلام والإحسان بجاه محمد آمين اللهم اجعل لنا لساننا آمين ذاكرين إليك بجاه محمد آمين اللهم اجعل لنا قلوبنا محبين في الله بجاه محمد آمين اللهم اجعل لنا عقولنا متفكرين أبدا بجاه محمد آمين اللهم اجعل لنا عيوننا ناظرين لكتابك بجاه محمد آمين اللهم اجعل لنا جباتنا ساجدين لك بجاه محمد آمين اللهم اجعل لنا أرجلنا قائمين لعظمتك بجاه محمد آمين اللهم اجعل لنا دعاءنا مقبولا منك بجاه محمد آمين اللهم اجعل لنا أرزاقنا خير الحلال بجاه محمد آمين اللهم اجعل لنا خاتمتنا بالتهليل والتحميد بجاه محمد آمين اللهم نوي سرائرنا كما نورت البدر بجاه محمد آمين اللهم يا ربنا ويا رب العالمين نرجو غفرانك بجاه محمد آمين يا رب اللهم صل وسلم يا ربي صل وسلم على محمد آمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير العباد آمين اللهم يا ربنا ويا رب الكريم أجب دعائي بجاه محمد آمين يا رب العالمين ثم دعاء زود المريدين ونفهم المطلوبين يا مجيب الداعين أجب دعائي آمين آمين يا رب العالمين جزاك الله خيرا lii ñaan yu am ama am solo la ak Cheikh Muxtaar moomu nga xam ne ni moo bind téere bu mag boobu moo ko bind muy ñaan yu am solo bokk na ci ñaan yi nee na suñu borom subhaanahu wa taala ngi lay ñaan suñ tànk yi na taxaw di la jaamu rek ngir màggal la bokk na ci tamit suñu borom subhaanahu wa taala ñu ngi lay ñaan bu ñuy kàddu gi mujje génn suñu làmmiñ na nekk laa ilaha illallah alhamdulillah ak kàddu yu màgg yooyu kon yàlla nañu yàlla fayal Cheikh Makhtar Lo yàlla nañu yàlla fayal Cheikh Makhtar Lo yàlla na yàlla yokk ay ngëneelam yàlla na yàlla yokk ay leeram yàlla na yàlla yokk ay maqaamam barkib Seydina Limaamul Mahdil Muntazar alayhi salaatu wa salaam kon nag lii ay ndénkaane la yoo xam ni al imaam Mouhamadou Saghir ibnu al Cheikh Jibril Gaye al Yambari moo ko bind. muy ndénkaane yu ama ama am solo nga xamni kep kuy doomu adam rek man nga ko jariño kep ko xamni da nga aju ci nit man nga ko jariño kon nak ki ñukay jangal muy ab imam sahir min bi mi bes tuddee bés bi moo bind muy waja wax bismillah waju libas li kawar jaamu yalla mom ki di bur boole fi ak di fi naimil jannati seydina limaamu danoon jaamu leen bu leen defi noon dimbalante kollu ni ñaan dina am bi bul di geesu waaju gëlëm ba di gaaral seydi imaam loolu moo tooke sa guddi jëm xiyaamati bul di xaste bul di bonal yoonu kenn bul tilimal jëfu kenn kon nga jubal yooru seydi saati qaala rabbu samad fi kitaabihi zil majid laa nufarrix bayna ahad min rusuli asmati bul xotti diine tabul xotti war ma nga kamal bul di rëylu kon nga jubal bi tariqil jannati bul sentu waaju la sut bul di waaju nga sut yàlla moo di buur bi fi sut moo di zul xoorati bul ka seet si man mi ka wax ndax dama jubul ba di wax na nga seet maanaam li ma wax kon nga am hidaayati bul di ànd ak waaju gëlëm bul di nooru waaju di xam kon nga soobu yoon jëm daal di salaamati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 اللهم نجنا مع ناجين ولا تنجنا مع الهالكين صفصنا والمك دائما إمام المرسلين allahu salli ala sayyidina muhammad kon lii ay ndénkaane yu am solo yoo xam ni al imaam Mouhamadou Saxiir moo ko bind dégg ngeen ci biir wax ji mu ni waaju gëm libaas li ko war jaamu yàlla moom mi di buur kon képp koo xam ni dangaa gëm seydinaa limaamu alayhi salaatu wassalaam imaam saxeer leen la teg ci yow mooy jaamu yàlla te topp ko seydinaa limaam alayhi salaatu wasalaam nee na déggalu ndaw dara lu warul ko lu dul mu jotal lañ ko jox te man jotal naa bokk na ci biir nee na kii weddi seydinaa limaamu ak di ko gaaral bul ko tontu bokk na ci ki la sut moo xam ci xam-xam la wala ci daraja wala ci alal bul ko gees bu lu xool loolu parce que boo xoolee loolu rek fàtte nga li yàlla def ci yow way wi lim ëmb bari na torop torop torop kon yàlla ñu yàlla fayal tamit al imam mouhamadou saghir yàlla na yàlla yokki leeram yàlla na yàlla yokki ngëneelam yàlla na ko yàlla waneleeg seydina al imaamul mahdi al muntazar alayhi salaatu wasalaam lii nag ba day ay ndénkaane la yoo xam ni yu ama ama am solo la yu jëm ci laayet biir al imaamul azam seydina al imaamul mahdi yu wax ko ci biir xutba ba waaye ñu traduire ko en français waaye imaam Mouhamadou Sakhir jàmbaaru lislaam ji jàmbaaru diine ji yombal ko ci ñi nga xam ni jànguñu arab jànguñu français te dégg olof dong mu defal ko ci wolof yi set wecc wecc ba nga xam ni ñëpp mën nañ say jariñoo kon nag ñu ngi ñaar mbooloo mi yëpp ñu ànd teewlu ñu déglu Baye Oustaz mu jàng araab bi ñu déglu Mouhamad Top wax français bi ñu mujj ci xadi ndaw mu wax wolofal bi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق القلق وجعل منهم رسلا واصطفى من الرسل محمدا وجعله أكرم الرسل وخير العالمين وجعل أمته أكرم الأمم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم honoré Dieu, le calama, le miséricordieux. L'ordre a Dieu qui créa les créatures et mis parmi les hommes ses envoyés. Et qui parmi ceux-ci soit de Mohammed est le rendit supérieur à tous les envoyés. Il est le meilleur des créatures. Et de même, Dieu a fait de son peuple le meilleur des peuples. Que Dieu répande sur lui, sur sa famille et ses compagnons, ses faveurs et la paix. قال سيدنا إمام الله مهدي عليه الصلاة والسلام إن الدين النصيحة وأما النصيحة فهي أن تنصح لله ورسوله وكتابه ولأئمة الدين ولعامة المسلمين سيدنا Imam الله عليه الصلاة والسلام أدي لا religion, c'est la disponibilité généreuse, c'est-à-dire la disponibilité à l'égard de Dieu de son envoyé, de son livre, des chefs religieux et de tous les musulmans. Imam Sahir Gaye nee na alhamdulillahi lazi minna talab nasixatan di kulli man lahul adab limaamu nee na diine laa wiirante bul xiis bul iñaan te bul noonante deglu ma wax la na limam toxtali la biir ci diine ak ko séddalee la biir ci yàlla ak rasulullah ak téere bi yàlla baax ibaadullahi ginnaw sa la bi ci kilifa yàlla dagal jullit ña moy la nasiya la wa nasihatu lillah an tuwaxidahu wa ta'mal ma amara wa tatruka amma naha anhu wa tamura annaasa bi dalik être discernible à l'égard de Dieu, c'est reconnaître son unicité, exécuter ses commandements, s'éloigner de ce qu'il interdit et conseiller aux hommes d'agir dans le même sens. Imam Sakhir Gaye nee na yàlla mooy nga xam ne am naa wéetal ko gëm ay dogalam lii war naa wa nasixatu li rasuli an tumina bi

yàlla ko yónne ci nitam te xam ni ku yàlla yónne boole ko kéemaan yaa yey daaral yoneen nga ci mbooleem gox yaa mooy moxtisaat yi muy lëkkoo ci yàlla mooy tax ñu gëm lu muy soloo ci yàlla ngay jëfe sunnaam te digal ko nit ci kuy déggum digal ci mbooleem nit ñaa wan li kitaabi an taqra'ahu wa tatluwahu wa taamala bi ma Être disponible à l'égard du livre, le Coran, c'est le lire et le souvent et pratiquer ce qu'il prescrit. Imam Sakhir nee na laa bii sa téere ba naa furqaana mooy xam ni yàlla moo wàcce qur'aana ci xayru naa si ngir xamal jaamam ya atteem ya ak digal ya ak sañ-sañ ya ngay jàng téere ba tey seen maanaa ya tey jéem def digale ci aayam ya tey wattu lu muy bañ ci mbooleem furqaan da ngay digal loolu ci mbooleem ixwaan wa nasihatu li aimati diin an tuhibbahum wa tattabiahum wa an tuinahum ala amri diin wa tamura annaasa bi dalik être disponible à l'égard des chefs religieux c'est les aimer suivre leurs conseils les aider dans les activités qui concernent la religion et conseil aux jeunes d' adopter la même attitude à leur égard bul fàtte laa bi ci kilifay diine mooy nga di leen dimbali booleeg yéene ci lépp lu ñu aajowoo ci diine te nga di leen topp fii amri diini bul fàtte atéon laha wa atéon rasula uli amri min kum fat beo jëlee wax fii suratin nisaa yi sadaha allahu sahibul alaa والنصيحة لعامة المسلمين أن تحبهم جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب المؤمنين ولا يبغض أحدا منهم أتدتني بالفيزا بدتولا مثل ما سلزمتوس كار قبل دي نافو دي جو كجر ربان سيرلي سابنا دي سنو Le croyant doit aimer tous les croyants et ne doit en haïr aucun. Et comme il l'a encore dit, le vrai croyant doit vouloir pour son vrai croyant ce qu'il veut pour lui-même. L'envoyé de Dieu, que Dieu répande sur lui sa bénédiction et la paix, a dit Ne vous haïssez pas les uns les autres. Ordonnez le bien, déconseillez le mal tisser entre vous de bonnes relations. nee na laa biir ci mboolee muslimiina saaxibi yi mooy nga di leen sopp kama qaala nabi al muminu yuhibbul mumina kama yuhibbu nafsahu te lii de wóor na ma allahuma salli ala seydina muhammad li nga xam ni moom la seydina limaamu alayhi salaatu wa jàngale ci xutbaam ñu imaam saxiir fii lañu ko ci langue wolof pour ñi nga xam ni jànguñu tubaab jànguñu arab yëpp mën koo jariñoo kon yàlla nañu yàlla fayal seydinaa imaamul mahdiyul muntazar yàlla nañu yàlla fayal njabootam ga ak saaba mi tëdd yëpp